al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak li téye lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi daara al ibadatu wal xidma ñu ngi nuyu baax tey siyaare mboolem bi yëpp rek di ñaanal baax sëriñ Muntaxa Mbàkke yàgg fi loolu te wér di wax ne ñu ngi nuyu baax su borom xam ko yëpp seen taxawaay bu am solo waaye suñu suñu docteur yu baax yi ñoom it seen taxawaay lépp di xam-xam kon noonu ñu ko waxee woon ñu ngi fas yéene dalal Serigne Fallou Lo Kër Mbari moom it ci jàmbaar lool wax dëgg yàlla taxawaayam ci xam-xam ak yéen ñi ñëpp xam fi muy waxee ñu xam ko lool ci télé yi ak rajo yi taxawaayam lépp di xam-xam ñu war a moom jotaay ci ay tomb yu wuute yu fasantikoo waaye ñu ngi nuyu it ba tey eh, ñu nga xam ne ñooy topp jotaay yëpp rek ah, ñu mel ni eh, maj tafkiru sala majmuhatu al imtisaaku majmuhatu bokk ci xalaat majmuhatu ànd saamu jikko ñëpp rek kenn ku lim dangay ngi siyaare ñëpp rek jërë ngeen jëf waaw jërëjëf xam naa suñu laaj bu jëkk dañ koy tàmbalee ci Afrique bu ne gis na ne bari na ñoo xam ne dañ leen fi assassiné rey leen xëy na lépp politique la waral politique bu ñaaw rek waral ko waaye it euh, euh, jàll ba Amérique defe naa ci defe naa moo doon troisième président xuma quatrième xam naa bu ñu nee dañ ci gën a indi ay leeral moom dañ la gisee woon yàgg ci nguur comme ni suñu africain yi di yàggee ci nguur ba mujj gi euh, daanaka dañuy mujj daanaka nekk ay ay ay ay buur jërëjëf. mbokki réewum Sénégal maa ngi leen di nuyu. di jaajëfal bu baax nag sëñ Xaban Diop bu al ibada wal xidma ak taxawaayam di nuyu majuma bépp noonu lay nuyoo nag euh, bala ma jàll euh, ki fi toogal sëñ Touba sëriñ Muntaqa Mbàkke na fi yàgg te wér di nuyu xulafaaw ak turuq as suufiya waaye di nuyu umaraaw al jamaat al islaamiya bii wax ni tey yemoo fukki fan ak ñeent ci safar laaj nga ma question bu nga xamee ni ci nga doore muy question bu ama am solo waaye maa ngi ñaan yàlla ci barke siddiquhum barke rahmaanu rahimu barke hijaabu daarayni yàlla doole aar réew mi yàlla doole ñu defal ñu tawfiq ak taysir Euh, bu dee histoire politique bu Amérique nga commencé dama defoon chronique boo xamee ni tuddoon naa ci ñeent ci les pères fondateurs tàmbale ko ci quatrième président ba muy James Madison bi nga xamee ni bi Amérique di am indépendance en 1776 vingt cinq ans rek la amoon toppaloon ca Thomas Jefferson mi nga xamee ni mooy principal rédacteur bu déclaration bu indépendance bu Amérique moom fanweeri at ak ñett la amoon bi Amérique di am indépendance ñëw ci ki ñu tudde John Adams moom ñeent fukki at ak benn la am bi Amérique di am indépendance waaye nag premier président bi comme si la question bi ñëw moom nga xam def na ñaari mandat te kii ma mujj tudd muy John Adams moo nekkoon vice président ñaari mandat yépp euh, moo waxoon ni bala may ñëw ci boobu nga tudd yow moo waxoon ni bis bu ngeen demee ba seen liberté d'expression ñu xañ leen ko xam leen ni dara wuutale wuleen ak ma yi nga xamee ni dañ leen di gurgur muton yi di yóbbu ca abattoir ba pour xonqal seeni baat kon dafa mel ni da dégg ni bañ leen loolu te loolu dafa mel ni réewum Sénégal tey jii fa la toll ñi def publication ci Facebook wala nga def ko ci benn ci réseaux sociaux yi de la plateforme digitale mën nañ la caa jël mandat de dépôt la bañ awalee garde à vue mandat de dépôt wàcc la dugal la ci camp de concentration yi sax ma ndax euh, dañ ni camp de concentration li ko wuutaleeg ab kaso Euh, mooy li ñuy tuddee euh, centre de détention yeeg yu ma xamul loolu wala li ñuy tuddee prison moderne mooy que ni camp de concentration ay normes juridiques euh, kenn du ko fa respecte mooy niñ lay arrêté dañ ko war a arrêté arrestation yi dafa war a am nuñ ko nuñ ko defee en emprisonnement bi am nuñ ko war a def waaye premier président bu Amérique boobu xamee ni armée continentale bi itam moo ko jiite woon moom bi Amérique bi am indépendance quarante quatre ans la am waaye mu am jàmbaare mu ni nag bëggumaa faatu ci nguur ndax bu boobaa keneen ku ñëw day yaakaar dafa war a nguuru rek ba faatu bi mu koy wax mi ngi am juróom-benn fukki at ak xëy na bi muy bàyyi nguur juróom benn fukki at ak juróom la am mu teg ci ñaari at euh, soixante sept ans la am bi muy wàccu liggéey juróom-benn fukki at ak juróom-ñaar kooku lu lu euh, njàngale mu réeréy la jàngale te booba amuloon ay garde fou wala ay limitation mandat wala yenn ci jamono yooyu loolu kooku kon mooy question bi njëkk foofu la ñuy taxawaale ba déglu yaat yeneen yi nga xam ne moo ciy topp sëñ ban euh, waaw dafa am lu dagg élément boobu question bu am solo waaye tontu ko ak ay jafe ndax il faut nga xaw a def historique bu la puissance coloniale noonu lim fi baax ndax la jëkkoon mooy nga indi sa armée ku wax armée nag wax ay moyens yuy déplacer armée boobu ay junni junni wala ay téeméer yu baree bari ci ab benn contrée da wax lekk ga ñuy war a lekk di di ko ndékkee di ko añee di ko reere bu ñu feebaree wala faju ak yeneen yu baree bari ak itam opposition ba mën a jóge ci ña nga xamee ni ay vrai patriote lañu gëm réew ma bëgg réew mi moomaat boppam léegi ñu ne loolu kat am na lu ko gën a woyof léegi danañu dem ni leen am ngeen indépendance waaye dañ fi wàcc benn indépendance entre guillemets tur bi dana fi nekk rek waaye bu dee bac boobu bi mu ñëwee xool contrat yi ndax dama la koy joxe exemple rek pour tënk ndax nit ñi lu maanaam lu ñëpp xam wala lu ñu bari xam loo ca wax lu néew néew mu doy bac boobu ni bi mu ñëwee xool contrat yi dafa mel ni mille francs bu nekk buñ ko génnee ci suñ suuf si ba noppi France day yóbbu 880 bàyyil ñu fi 120 francs ma ne lii nag mu mënuñu cee lii ba kañ léegi kon armée yooyee. ak la koy dundal la koy faj bu feebaree nga daal di jël nag léegi monsieur X daal di teg Mali jël madame X teg Guinée teg Sénégal teg feneen muy façon ay valet wala rek ne ab gouverneur wala walla ab préfet wala sous-préfet bu France ci diwaanu Sénégal ñuy continuer zircon doo xam li nga ciy am exemple bi ma ciy joxe bu gën a gàtt mooy bi may xool ñun suñ 18 tonnes yi lan la ñuy indil annuellement man na plus de 600 milliards de francs CFA juróom-benn téeméeri milliards yu francs CFA ndax plus de 1 milliard euro la mais fi mu ne xëy la ba nga ciy ñam donc kon dafa gën a yomb léegi nag ci nga fi teg ñaawteef gu mën a def loolu franc yi wax ni ndax buñ la trahirloo sam réew ci force étrangère yi mooy puissance yooyu tel que Amérique Angleterre Allemagne ndax da ko nangu nga ni waaw ndax buñ la reyloo woon sa doom sax da ko rey nga ni waaw ndax ndax yu bari yooyu muy bu ca nekk nekk en violation ci li nga xamee ni moom nga waatoon ndax ba ngay waat ni da ngay nekk njiitu réew Mali wala Sénégal da nga naan de respecter et de faire respecter les lois de la République mooy non seulement yow da ngay respecter da da ngay respecter règles yi waaye da ngay fexe ba doomu aadama yi nekk ca kon bu dee justice jiitu bu dee mbir yoo ay yoo xamee ni anti corruption la yaa cay jiitu bu dee bonne gouvernance yaa cay jiitu bu dee lu ci rek yaa cay jiitu mais léegi loolu nag moom mi ngi mel ni euh, franc-maçon yi ci tënk dañ la naan hal adulluka ala shajaratil xuldi wa mulkin laa yablee loolu noo koy firee rek jërul ngay dem ci baat bu ci nekk mooy ñu teg la fi yow Blaise Compaoré nga nekk fi boo fi jógee sa doom ñëw wala ki nga tànn yow Macky Sall ñu teg la fi ba boo demee su la neexee sax teg fi loolu mooy hal adulluka ala shajarati xulwum waaye loola wax nañ ko te nañ ba tàyyi ndax Iblis Blaise Compaoré dafa mujj wëqatiku daw dem Côte d'Ivoire ATT dafa mujj daw fii ak Donguri ba muy dem aéroport ñëw Sénégal gi ba mu delloo tuuti la ci technique kan dee waxoon nañ ko tànjaam bu Niger lii daal mooy tënk gi ñoom ba léegi nanga xamee ni ñun bu dee démocratie dañ ne ci démocratie moom dafa mel ni doole mooy def dëgg mooy li Macky dafa mel ni dëgg mooy def doole loolu moo tax bi fi tubaab bi ñëwee def fi daanaka ñetti fan te dafa bi muy dugg dafa violé sunu espace bi muy dem itam dafa violé mais teewul bi nga xamee ni droit de l'homme ci réew aw nañ fi ñu war a aw ñoom xam nga ni Macron dana eh bu leen ma bu leen ma créer ay problème eh Macky Sall waccal kooku mu daal di ñëw ñibbisi loolu lu mu néew néew ab république ma ngay dox foofu loolu daal moo doon tënk ji ma taxawaale foofu waaw jërëjëf sëñ Fall am na solo tontu bi am na solo waaw matalan xam naa ñu sofaat ci beneen laaj rek jëm ci France ñu wax France Afrique rek dafa ne ñu sonal africain lépp lu am France amul or amul nangam amul pétrole amul lenn amul waaye gis nga day mel ne loolu yëpp moom da ko am ndax ci ay gouverneur am mën nga ne ay gouverneur am la koy jëlee mooy ñu ngi def ay gouverneur xam ne ñi nga xam ne dañ leen di fal askan wi fal leen waaye ñu jël seen bopp jëbbal France muy lu yéeme lu day war jàpp na ñoom buñ contré France France mën na leen wala nangam nga xam ne dañuy mujj eh, trahir seen population ànd ak ndax loolu lan moo waral loolu ndax Afrique kañ bàyyi France mën a sukkandiku ci boppam dem waaye jàpp na bu am France teg ko ci kanam lu mu am def ko def na lu mag dem wala su contré France France xeex ko lan moo tax loolu loolu loolu am waa xam nga xabban euh, wolof danaan lu ni fànn kenn du ko jeex waaye zone bu zone bii ñu nekkee ñun yow kay li ma laaj sax dafa mel ni li ma laaj tontu nga ko ndax indépendance yi ñu am tamali ni da cay génn moom Burkina génn ca Niger bëgg caa génn Sénégal gii bëgg na cee génn waaye dafa mel ni nun dafa mel ni ndax la ma sama baay waxoon ni réew mi tabaxaguñ ko xëy na modèle citoyen bi ñu soxla bala ñuy wax ci un patriote il faut ñu wax ci ban modèle citoyen nga am ba noppi mais dañoo tabaxagul nit bi doomu aadama bi ñu tabax ko ci bëggum réew mi waaye yow yii ma la tuddal phosphate bii fer bi ma dégg ñu ne am na architecte bu siiw ci réew mi que ni bu doon dañ ko exploité ni ko war a exploité rek suñu 18 millions yi fi nekk même ku ci amulum xëy man na weer bu bu dee ñu ñu ñu jox ko ñeent fukki jun mu faj ay soxlaan yu ndaw ndawaan mais tuddaguma lithium tuddaguma gaz ak petrol bii nga xamee ni ñu ngi naan ñi ngi ci yoonu di ko exploité ne loolu Dubai émirat arabe uni waxuma Dubai ndax Dubai benn émi euh, benn la ca émirat ya waxuma Qatar mi nga xam ne ni PIB moo gën a kawe ci monde bi yëpp booy xool PIB yi Sénégal ma nga ca cent soixante troisième mais kon tënk gi mooy indépendant et souverain réew bu dee dafa souverain day wax ci turam di addu ci turam day addu ci turam di jëf ci turam laa bëgg a wax ciw mais du jël loo xam ne France moo koy dicté ba ci contrat yi nga xamee ni yi nga war a jënd léeg-léeg extérieur France lay dem kani ba soxlawu maa jënd te li ci ëpp léeg-léeg dafa am diir boo xamee ne am na quota buy dellu ci moom kon ci anam bii ci laa wax ni nga gis nag milliards yi ñuy luubal ñoom ndax xoolal ma wax la rek Euh, réew mu nekk ci yoon naka lay demee moins de soixante dix milliards ñu def centrale boo xamee ni le Mali est devenu indépendant sur le plan énergétique mais bu doon réew mu mel nii nga xamee ni surfacturation dafa mel ni bu doon ñoom dañoo amul tur ñu ni mooy seenu sant ndax dégg nañ fii plus de mille milliards ñu def ko ci moins de quarante cinq kilomètres te am na sénégalais bu liggéeyee ci société yooyu li mënoon a liggéey ci moyen de quatre vingt maanaam moyen de mille milliards mënoon na cee moyen de mille milliards mën na cee defar train yoo xamee ni raay boo xamee ni train yi day dem ci région yépp ci Sénégal kon loola foofa lañu ñu war a fekk àggaguñu ci ñu am éducation bi ñu war a am am constitution bi ñu war a am di jàngale am une école sénégalaise wala am une école malien wala am une école burkinabé wala une école gabonaise di jàngale suñu culture ndax dañoo manufacturer beneen culture inventé ñu beneen histoire ñu jàng suñu di ñu jàngal suñu culture xamal ñu suñu histoire loola mooy tax ñu am benn dévouement pour notre patrie te dévouement boobu ñu am bëgg googu maanaam sunu xol nekk ci sunum réew sunum réew jaral ñu def les sacrifices nécessaires loola moo ñuy yóbbu ci fi nga xamee ni moom la état yépp dem ndax fi mu ne kay fanaan ca mbedd yi ca Amérique boo ni ko woon Afrique mu ni la cam demuma mbedd fanaan ci mbedd Amérique ndax dañ koo yar ci mu am dévouement pour sa patrie mu bëgg am réewam réewam jaral ko mu dem guerre ñam bu ca bakkanam di def loolu tel n'est pas le waaw jërëjëf sëñ Fallou ñu ngi lay jaajëf bu baax a baax a baax am na solo na nga ñëwuñu si wàllum lëbu maçonnique gi rek franc-maçonnerie xëy na yàgg nga jël ay chronique waaye gën ñu ci indil ay jàngat ndax jamono ji laaj na mbir yooyu xam ko bu baax a baax a baax ak seen pexe ak seen i doywaar jërëjëf waaw bu dee mbirum lëbu maçonnique yi comme ni nga ko laaje euh, loolu day nekk lu yaatu ndax euh, franc-maçonnerie euh, du du benn franc-maçonnerie rek am na monde bi ñuy tuddee Illuminati di fait soixante-seize ci Bavière tey parti la ci Allemagne ba ci biir franc-maçonnerie gi am na euh, York Rite am yeneen maanaam rite yi bokkuñu daal am na rite écossais ancien accepté waaye pour jéem koo tënkal nit ñi ba ñu xam li ñuy wax rek mooy mu ngi mel ni ci benn niveau nga naan xisbullah wa bu seytaan ndax am na kàngam moo xamee ni moo bind le crépuscule des frères nekkoon Alain Bauer euh, kàngam la woon yaakaar na sax jiite woon na nekkoon a grand maître bu euh, Grand Orient boobu obédience bu mag boobu ci ci réewum France te samp tànk fii bu yàgg yàgg euh, dafa wax ni Adama alayhi salaam sax nekkoon na ab franc après mu expliqué wu ndax dani mooy wala taqraba bi shajarata ga rek fa takuna min adh nii donc bu leen lekk ci garab gi wala bu leen jege garab gi loo ko mën a tekkee loola nee nañu euh, le fait que yàlla ne tere na ko mu def rek dugal na ko ci cadre franc kon daf mel ni li ñuy dégg ci franc-maçonnerie bala nga ñëw ci lobby bi mooy képp koo xamee ni ci jamono ji def jëf jëf ji nekkul lu la yàlla digal maanaam dafa mel ni yaa ngi ca tooñ te boo nekkee ca tooñ rek dafa mel ni da ngaa génn loolu mooy tudde léegi rek al itarul muhammadi yu da ngaa génn limaan islam ihsan daal di dugg ci beneen daayira ba mooy eh, lan al kufru wal fusuq wala isyan wala loo wala loo ko tudde wa shirk wala leneen loo ko tudde kon eh, ci niveau beneen nag eh, mu ngi mel ni ñu ngi naan Afrique gii francophone am na lu mu néew néew fanweeri junni ci ay franc don dont téeméer bu nekk fukk ak juróom quinze pour cent ay jigéen lañu bu njëkk nag franc-maçonnerie gi daanaka dañ cee écarté woon jigéen ñi léegi nag lobby ñëpp ñu tase benn groupe bu tase bu nekk di complot di def loolu ñuy wax al makru yi loolu euh, surat Faatiha walaa yahiiqul makru sayyi'u illaa bi ahlihi maanaam fu ay nit tase def ay manœuvre perfide def ay complot sinistre ca jamono dañ koy def ba bañ koy tuub ñi ngi benn façon lobby lañu wala ñi ngi ci ak groupe benn groupe wala groupuscule bu franc-maçon lañu léegi nag ñu am seen lu mel ni li ñuy tuddee ay darajaat wala ay ay grade wala ay degré degré yooyu nag degré bu ca nekk am waat gooy waat ni bu ma buñ ma def defloo nangam danaa def nangam buñ ma teree nangam danaa ko bàyyi bu ma bu ma yu yudul jeex yooyu donc ci ngay mën a dégg loolu nag léegi mu am ay adhésion yoo xamee ni tey dañoo nekk ay chef d'état wala ay chef gouvernement nekk ay roi wala ñu nekk ay reine monde arabe am na ci euh, ay nit yoo xamee ni tey dañ naa dañ leen di làq waaye dañuy dañuy nëbbu seen identité mais ay ponkali franc-maçon la ñu nekk na ci monde arabe fes ci dell mais noonu la nekk itam ci suñu franco maanaam euh, espace bi ñu tuddee euh, francophone wala Afrique de l'Ouest gi noonu la nekkee Afrique centrale ku mel ni à titre d'exemple ki nga xamee ni sëriñu euh, euh, Macky Sall Denis Sassou Nguesso fii lañ ko initié ci Dakar ci benn loge moom mi ngi bokk ci grande loge nationale française ci la bokk mais bañ koy introniser bu ma juumul boori 2002 la ña ngi ko defee Congo Brazzaville fi mu ne obédience booba fii mu ne mooy maître ba mooy ponkal ba kooku ñu François Bozizé xaw ma nekkoon Centrafrique moom moom moo ko moo ko initié ci mbir wàllu franc-maçonnerie kon donc kàngam la tey jii bi fi Omar génnee moo nekk doyen bu euh, Afrique subsaharienne ak Afrique centrale mooy seen doyen waaw mu mu yàgg ci mbir mi lool euh, euh, moom it nekk ab milliardaire am na doomam ju jigéen ak ju góor jóg yoo xam bi may def étude boobu yaa ngi koy rappelé wu ci chronique ci dénestation nge ñoom ñaar ñëpp ay milliardaire la ñu loolu ay ONG wax nañ ko ak ñeneen ñu dul ak ay ay ay ay nationaux yoo xam ne ni ñoom it dañu def ay investigation ci wàllu woowu kon daal pour pour effet d'être bref euh, entité boo gis ñu bokk ay la ñuy nas ci euh, tey jëf jëf joo xamee ni dëppoowul ak euh, ni ko yàlla diglee wala ni ko ni ko république bi tege ak yooyu rek daanaka man di def ci mbir ay nas di kompaloo maanaam di def ay manipulation ak yeneen ak yeneen ba ci force occulte yi ngay dégg ñi koy wax ñoom dëgg-dëgg ñooy force occulte parce que force occulte nekkul lu dul ñu nekk ci lëndëm di def yu lëndëm euh, di ko jiñ ñeneen donc loolu yaakaar naa moo may indi ci sa beneen question boo xam dégg naa ko li ñu tuddee PRS mooy problème reaction solution ci lay ñëw. sëñ Xaban di la sant bu baax ndax euh, pour ñi xamul man depuis des années ngay nekk ci benn rajo fii ci diwaanu. Louga te mu doon émettre ci Touba Saint-Louis ak ci diaspora bi euh, même man ma jël technicien yu rajo boobu yow yaay sama monteur privé di sama technicien li ci ëpp itam réalisation bi yaa koy def di ko def nag sans intérêt euh, ci limaan jiñ limaan islam ihsan jiñ bokk ina diina inda layl islam gi nga xamee ni murid bi tiijaan bi abdul qadir bi abdul rahman bi euh, euh, ñun ñëpp ñu foofu loolu bu ma rek santee ba noppi damay wax ni li nga ma mujj wax ni naa ci wax muy nit bala muy falu waroon nañoo xam ñan la amal connexion man sax dama naan waroon nañoo xam moom fan la defal primaire fan la defee secondaire am fan la defee ay études universitaires parce que dafa am loo xamee ni moom la ñuy tuddee the round table round table ay think tank la yoo xamee ni mën naa ci tudd lu mel ni euh, trilateral commission commission trilatérale boo xamee ni ay européen euh, bu ma nee européen na maa ngi Europe occidentale Europe occidentale foo ko waxee pour ñu xamul mën nga cee tudd ay Espagne ak i France ak i Angleterre ak yu mel noonu ak Amérique mais ñooñu asiatique yi itam dugg nañ ci club boobu mais am na beneen bu ñu naan Bilderberg danaa ci ñëwaat ndax lu tax ndax mbirum Macron moo xame ni danaa ci leeral li ma bëgg ni may tontoo question bi euh, dafay xaw a technique tuuti Emmanuel Macron ñooñu invité woon nañ ko en te booba ba léegi mi ngi nekkoon ci jamono jooju gannaaw gi lañ ko fal ministre bi yore économie mais jamono jooju moo nekkoon euh, euh, secrétaire adjoint bu Élysée bu ma jung euh, ñu ñu ñu ñu dalaloon ko fële ci Copenhague wala Copenhagen Danemark muy ci les pays scandinaves mu defoon fa discours bu boo xam ne nee nañu dacaa dal bu baax a baax François Hollande waaye danaa ñëw lu tax loola François Hollande yëgu ko ndax seen réunion yooyu kenn mayul dara di fa génn ca lañ fa waxtaan kon Bilderberg commission trilatérale man nga tudd Royal Institute of International Affairs muy think tank boo xam ne ngi basé wu Londres man nga ci tudd C euh, CFR wala CFR muy Council Council on Foreign Relations kooku moom ay américains ñoo ci ñoo ca nekk ay ay famille yoo xamee ni ñenn ñi ay ci wàllu banque lañ nekk ñenn ñi wàllu finance ñenn ci wàllu université yi ñenn ci yeneen domaine euh, club de Rome ak yooyu yëpp loolu mooy the round table léegi nag li nu waroon a def te ñu koy manqué ñu bari parce que là fii on nous di que ku mel ni Maba Diakhou Cheikh Oumar Diagne mi ngi ñuy wax que ni lobby homosexuel yi franc-maçon yi dañu contribuer bu baax a baax ci élection bu en 2012 bu ku mel ni Macky Sall mais bu dee fu mel ni les grandes démocraties telles que Amérique France yooyu yëpp mën nga leen cee dugal mais nit bala muy falu dañuy xam ba xam moom lan mooy gis-gisam ci homosexualité par exemple mbirum yi ñu xam lan mooy wàllam ci wàllu avortement lan mooy gis-gisam ci wàllu diine ji yooyu yëpp buñ ko xamee ba bu dee moom dañ leen a jàppe rek sëriñ si que ni ay citoyen ordinaire lañu ah ñu xool peser mais ndax kooku war nañ koo jox sunuy xol en tout dañuy teg ci taabal ji ay pas-pasam Joe Biden moom kan la pro gay la wala anti gay la mooy kii d'accord na ci mbirum ngóor jigéen wala d'accordu ci Obama d'accord na ci wala d'accord loolu lépp euh, it's gonna be a package mm. maanaam bu ñu package mooy boo koy fal da koy falaaleeg loolu yow kët yow conscient nga wala consciente nga bu dee jigéen que ni kët kii xam nga ni moom d'accord na ci góor ak góor sëy ak jigéen ak jigéen sëy d'accord na ci nit yàq biir ba ak yeneen ak yeneen yooyu boo ca d'accord nag boo ko falee après ëllëg bu ko defee yow maanaam bu nekk di di di ñaxtu wala di wax dara loolu nag lañ defu léegi ma ñëw ci cas bi nga xamee ni mooy Bilderberg Bilderberg bi ñu ngi ko créé en 1954 ci dëkk bi ñu naan Hollande ci hôtel boo xam dafa isolé wu euh, nekk foofu ci ci ci réewum Hollande léegi nag ba mbir ma doxee ñu pare ne ñun kat suñu léeg-léeg danañu wax conférence Bilderberg léegi ñu naan club Bilderberg mais c'est une société secrète boo xam ne nee nañu est-ce que ëpp doole ci àdduna ay lu mel ni David Rockefeller di américain ku mel ni Henry Kissinger xam ne nekkoon na Secretary of State mooy li ñu tuddee ñun ministère des affaires étrangères yore woon na ministère boobu ci waxin waaye Amérique Secretary of State la ñuy wax ñooñu buñ ko dalalee dafa def discours boo xamee ni daf ca critiquer bu baax politique gu Hollande mais teewul ba mu fa jógee tuuti ñu def ko mu yore ministre bi yore finance mais foofa nee nañu la mu fa wax mu doy na leen pour ëllëg ñu sélectionné ko au lieu de élection moo tax ma naan ci monde bi wax naa ko ay année ci gannaaw que ni daanaka sélection moo am mais élection ëmmatul fi may daaneele kon mooy Macron moomu tey jii moom taalibe Bilderberg la mais ku mel ni Macron moomu nag moo yilif ku mel ni sunu gouverneur bi wala sous préfet bi di Macky Sall ni mu amee itam wëlërante ak ku mel ni Denis Sassou Nguesso mi nga xamee ni fii ci dakaar lañ ko initié ci grande loge nationale française ndax am na beneen obédience boo xam ne Grand Orient la mais moom si boobu la boobu si dakaar jii lañ ko lañ ko lañ ko initié mais ñu koy introniser naan ko yow léegi ci ponkal yi nga bokk ñu ngi ko ko defee en 2002 bu ma juumul fële ca Congo tey jii Afrique subsaharienne ak Afrique centrale mooy seen doyen gannaaw bi Omar Bongo euh, décédé en 2009 ci mbàq yu yàqu mu mu décédé Espagne euh, ca ca Barcelone donc euh, ca Barcelone Espagne kon loolu mooy tënk il faut léeg-léeg ñu xam loolu bu ñu xamee jëmm ji ba muy jàng fan la doon jàngee et surtout diggante cycle secondaire am ba ba muy dem université ndax am na ko sant loo ci lay daaneele décédé na Cheikh Lo euh, doom la ci noonu wala léeg-léeg mën nañ ni mag la ci noonu boo xoolee lien de parenté yi am na koo xam doom lay doon ci ñun am koo xam ne mag lay doon ci ñun oustaz Amadou Lo mu ne ma li wax nii ku ta wedd ndax ñun bi ñu daan jàng France ngoon dañuy copte di ñu laaj di ñu woonaan ñu dañoo bëggoon ngeen ñëw ci suñu yi ñooyu ñooña ñooy franc-maçon yi doon recruter peut-être ku donc yow ëllëg kon boo faloo bu dee def nañ seen xaalis ci sa campagne ñu jouer un rôle capital ci sa sélection boobu ñu la defal ëllëg kon la chaque euh, boo faloo euh, ñoom lépp loo xamee ne day tax seeni droit ñu bafoué ko doo ca yëngu xëy na loolu sax moo tax nun ñaari yoon proposition de loi ñu dugal ko ci assemblée maanaam ñoom ñu ñu rejeté ko àggul sax génnul sax bureau assemblée nationale voilà en gros li ma bëggoon a wax wasalaam jërëjëf sëñ Fallou leer na am na solo am na solo tontu bi am na solo lool kawe na njort xam naa kon dañ ciy toftal loolu ñuy wax problème réaction maanaam ñuy créer dara pour bëgg a def dara tax ñu créer dara ko defee eh, nit ñi jàmbat ne daal da ñàkk amuñu sécurité amuñu nangam fekk loolu yaa ko créer xam naa ni loolu ci ñàkk nga mën cee mosal tuuti jërëjëf to des problem reaction solution parce que may préféré rek dara bu dee gëstu initial bi su ma ko jëkk a gëstoo bu dee en arabe la man na may wax terme muy en arabe pour mu gën a am euh, li may expliquer ma gën koo mën a expliquer bu doon ci français laa ko jëkk a gëstoo itam ma dellu ci loolu mais problème réaction solution pour euh, ma simplifier ko nit ñi mooy Eh, ay fukki at juróom-ñett wala lu ko jege wala lu ko ëpp sax wax naa ko ci diwaanu Touba boobu moo xam boobu Daaru Alimul Xabir lañ ma daan invité ci dayroot ansaar diinul islami wala ci Lamp Fall dama leen naan diwaanu Kër Mbaarik bi wala nga jël benn quartier ci Louga sanc ba sud sanc ba nord wala nga jël artier wala montagne muy mais quartier boo xamee ni dafay dund dund bu paisible maanaam nit ñi jàmmoo amuñu problème di saafonte ni ñuy di de maanaam daal dégguñu fa benn crime bu fay am dégguñu fa genn rey bu fay am dégguñu fa genn càcc bu fay am mais nag yow léegi il faut nga créer benn problème boo xamee ni moo fay jëlee loolu donc nan ngay def da ngay euh, boroomu boutique lañ fay sàcc ba noppi rey ko wala viol musu fa am nga violé fa jigéen ba noppi rey ko bu boobaa réaction yi muy rududu fiali mooy nit ñi dañ naan mais walloo parce que ñun insécurité totale la ñuy dund dafa démb wala ba ci démb rey nañ fi boroomu boutique fu nekk yaa ngi naan boo doon yónni sa doom sax muy jëndi mburu yaa ngi ko naan geestul ndax léegi euh, quartier bi wóoratul wala euh, village bi wóoratul loolu nag ñoom ñoo ko bëggee noona euh, danaa joxe ñaari exemple benn ba ñaari exemple léegi bu ko defee bu loolu amee réaction yi mooy insécurité insécurité fekk ñoom seen agenda mooy kuutul ak police lañ bëggoon a am foofu ci diiwaan boobu bu doon ab ville sainte la bu mel ni Touba wala Tivaouane wala Ndiassane peut-être présence bañ fa bëggoon a am ci wàllu ay police wala gendarmerie mënuñoo koo def bu dee jàmm rek moo fa nekk dañ naan amuñu laa nécessité de créer une police wala gendarmerie ci biir diwaan boobu bu ko defee nag léegi li koy dindi mooy loolu xam ne ñoo ko def ba noppi ñoom force occulte yooyu euh, yaakaar naa ci kaa tata leeroon na ci am na ay ndékku ca woon bu ko defee pour li li nga bëgg introduir nag mooy sa agenda noo koy defee léegi bu dee walloo walloo nga taxawal fa police wala genre léegi foo amul woon ay gët walay tànk walay walay yoxo ñoom ñoo fay nekk say gët nekk fa say tànk nekk fa say yoxo di bidd ay rapport di yóbbu ay ñaaw ci sax man nañ koy def ci biir dëkk ba moo xam dafa am seeni otoy kalando wala di fa am yeneen wala di dem kër gu sàggan sax ñu fay wàcc dafa def ay mbir yooyu yëpp day am Euh, man ci sama gis-gis waxoon naa ko lu mel ni safinatul amaan bu dee dañ koo démantelé te mu doon loo xamee ni mi ngi doon génne ay ñaawteef yu rëy ci Touba dañuy fexe ba indi gàkk-gàkk ci kenn ci membre yi wala un proche bu bu bu membre ya fa nekk wala ka jiite bu jéemee ci njiit li mënuñu dara ñu jiit ci ñi nga xamee ni mooy responsable yi ku gën a jege entourage mënuñu ci dara mën nañu fexe ba awee ci kenn ci sa membre famille wala yooyu ba mu defu ñaaw te bu ko defee bu doon yow wàllu euh, yaa doon wax wàllu éthique wala di wax wàllu yeneen yu mel noonu wala di wax ci ay axlaaqiyaat ak yeneen ñu fexe ba yow duutoo waxati ci loolu wala boo ciy wax yi itam dañ naan ah moom nangam ak nangam donc lu lu tasaaroo la euh, loolu mooy problème réaction solution en quelque sorte ki koy def moom natt na bu baax li mu bëgg a introduire mais ki mu koy def du ko xam loolu mën jox exemple yu bari Euh, première guerre mondiale ni ñu ko nettalee ak ni mu amee bokkul deuxième guerre mondiale naka noonu waaye booy ñëw bi nga xamee ni moom la ñu gën a xam ni ay bindkat yu bare bari ci Amérique ak Europe dañ cee bind mooy lu ñu tuddee nine eleven la onze septembre fen gënu koo rëy ni ko David ay bindee it's a monumental lie mooy fen wu ngandee ngande la ndax xam nañ ni julli yi ñu ko jiiñ jëfuñu ko am na ñu naan préparé bi war na jël fukki at wala fukki at ak juróom wala lu ko ëpp ñu koy doog a daaneel muy bâtiment yooyu ñu daaneel ci New York ak la xew ca Pennsylvanie ak Washington DC wasala waaw jërëjëf seen Fallou am na solo am na solo lool xam naa laaj bi ci toftal day jëm ci alxaramul it moom ñuy wax rek euh, def nga ci ay chronique waaye gën koo yaatal fii ba nit ñi gën a xam loo gën koo xam ndax lu am solo la jamono ji nit ñi xam ko bu baax a baax a baax jërëjëf. mbokki Al Hibadatou Wal Xidma ak euh, fu kàddu yi mën a àgg rek di wax ni euh, the pyramid of manipulation euh, yaakaar naa ku yàgg dégg ñuy waxtaan da nga dégg ñu koy wax muy li ñu mën a wax alxaramul masuni kooku tënk gi dafa bàyyiwul benn sphère maanaam dafa bàyyiwul politique ci ñetti branche yi nga xamee ni judiciaire législative et exécutive waaye bàyyiwul volet santé bàyyiwul éducation bàyyiwul renseignement généraux bàyyiwul drogue bii li ñu tuddee drogue dure cocaïne héroïne crack yu mel noonu bàyyiwul diplomatie waaye surtout bàyyiwul li ñuy woowee monde finance ak banque am na différence bu yaatu boo xamee ni xëjul ci waxtaan wu mel nii la waaye mën nañ cee ñëw def distinguo lan mooy banking system wala banque ak wàllu finance waaye média itam ak diine da caa ni léng loolu lan lañ buñ ko doon euh, faram-fàcce pour nit ñi gën koo xam mooy ñoom ñi nga xamee ni ndax seenu tool la ñoom franc-maçon yi wala lobby yi boo xamee ni euh, buñ bëggoon a def dara te bëgg nitu diine defal leen dañuy fexe ñoo xamee ni dañ naa ni ab sëriñ lañu fekk ci ñoom ci monde maçonnique bi lañ bokk euh, ñu bëgg awale dara ci wàllu média am nañu ay nit yoo xam ne dañ leen jënd ci média tey ji am na groupe yu mel ni Le Point bu ñuy wax alerte bu ñuy wax la dépêche yooyu yëpp xam nañ ñi ko financé wala nun xam nañ ko sous couvert ni l'anonymat jox nañ ma ñi ko financé renseignements généraux itam mi ngi mel ni tey nga ni Mike Tyson par exemple ba ma koy wax ca cinq wala six février 2021 Mike Tyson violé na Désiré Washington ñu ne nañ def test xool ba xam mais ñooy def test ya day nekk sëw nit wu fa nekk dañ naan ax ah, kay àgg na ci kawam même bu doon àggul ci kawam wala bu dee bañ àggee ci kawam tam lu ñu d'accord la ñoom ñaar donc kon fu ca nekk daal da nga fay fexe ba am fa aw nit woo xamee ni bu dee domaine judiciaire bi leer na leen que ni juge yi nga xamee ni tey jii lu leen Macky sàll sant ñu def ko ndax dama bëgg li may mu leer ay yoo xamee ni système bi lañ àndal ay juge yu ànd ak système bi ministre de l' inférieur wala de l' intérêt maanaam bu ma ne ministre de l' intérieur ma ni ministre de l' intérêt de Macky Sall maanaam ministre bi mi ngi dàkk rek intérêt boo xamee ni Macky Sall am na ko mu defal ko loola ministre bi yore justice itam nga fexe ba mu bokk ci maanaam pyramide boobu ñuy tuddee alxaramul maasuni noonu nga koy amee ci tey jii waa ànd sàmm jikko koy introduire lenn proposition de loi nga fexe ba du génn bureau ba wongo la muy dem ca ci assemblée bi nga xamee ni mat nañ bu ma juumul cent soixante cinq député de nga fexe ba du génn bureau ba sax yooyu nga xamee ni technique la yoo xam ne dañ ci aw boo boo ko defee combinaison bi nag ak problème réaction solution bu ko defee daanaka dañuy ndar képp lépp ñoom waaw rek moo doon tënk gi euh, kon xam naa ñu jàll ci leneen wasalaam waaw tout d'abord de euh, bi ma nuyuwaatee groupe bi euh, euh, am na téere buñ ñu naan trilateral conspiracy conspiration trilatérale boobu te surtout Cheikh Gaynde maanaam surtout Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke mu Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhuma maanaam doomu Cheikh Gaynde Fatma la kon Cheikh Mouhamadul Moustapha doon dund New York ba mu jeexam mu bindoon ko man ma jëndoon téere bi mille 2003 ca New York da ci wax ni euh, defoon naa ci chronique bi may wax pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba nekk symbole war mu nekk icône nekk légende euh, ma wax ni waaye malgré loolu lépp bu doon tey jii lay dund force occulte danañu ko ca boole boole ko ci ab extrémiste boole ko ci salafiste boole ko ci boole ko ci ndax waxoon nañ ni itam ab fauteuil fauteur de trouble la maanaam kuy def li ñuy tuddee trouble maker kuy def ay trouble à l'ordre public comme niñ ko tege ci doqub diw sàngam waaye nag pour man dama ni fatul manaan fi jaabi abdirahman dafa am ku ni ma sëñ abdul qadir de ko sant jóob la daan ànd ak sëñ sàmbay mu ni ma sëñ abdul qadir mbàkke de bi mu ñëwee ci jal bi doon na wax nan ko jàngale ma ni fatul manaan fi jaabi abdirahman boobu wasiye bu ama am solo la ndax bu ñëwee Euh, tuuti day ñëw ci ku bëgg xam-xam na am piété ragal yàlla ku bëgg a mucc ku bëgg a am wërsëg ku bëgg a bokk ci akramal naas dangay dangay am piété mu expliqué taqwallah naka lañ fay ak jàng ak solo sim am mu ñëw ci alamal bil jawaari ma ne nag tey jii buñ dellu woon foofii muy wax naan ku bokk ak ñii borom nguur yu doy waar yi nga xam dañuy tooñ di wax lu safaanoo force occulte force spéciale commando nangam nangam yooyu yëpp ñi nga xamee dañ leen di appuyer ci wax yooyu nga xamee ni ay comploteur kese ñoo koy wax un comploteur en chef ak ñi ànd ak moom mani ni loola yonent bi nee na ak di tooñ mooy di dóor ñi ci kaso bi di leen def ay mandat de di def yeneen ma ni eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma nga naan sa yakunu baadi umara un umara yooyu nag mooy tey jii premier ministre yu am doole wala président de la république yu mel ni euh, Ali Bongo mais nekkoon Gabon wala keneen ku nekkoon feneen wala Mobutu mu nekkoon feneen ay jamono wala euh, Blaise Compaoré rek danañuy tooñ di wax lu safaanoo ku ne ku ca ànd ak ñoom ca tooñ googa di di leen appuyer wala nga wala nga dëgëral leen ci loolu maanaam bokkoo ci man bokkuma ci yow waaye wax na ni responsabilité boroom xam-xam yi nga xam ne ni ñoo nekk umanaullahi ala ibadillah waaye nag mu ni condition bi wala conditionnalité bi mooy maalam yu xaalitu asalatina maanaam fekk jaxasuñu bo ñii tey ji yore nguur di doxale nii nekk ci népotisme mooy dugal seen mbokk yi deret yëpp ñu jël ay milliards yu dul jeex clientélisme bi corruption bi injustice bi mu ne ñooñu boo jaxasoo ñoom maanaam yu xaalitu asalatina fa ida faalu dalika mooy mu xaalatatu salatin gi bu amee na xaanu ar rusula mooy wor nañ yonent yi te ku wor yonent yi wor nga yàlla na ngeen leen moytu waaye booy ñëw fii ci sant sàll indi woon axiru baraawo bi nga xamee ni mooy wax naan comme weñ wu tong ci aw aw nàngam loole ci eh, sant sàll ba mu koy indi taa di ma jaxate xool ko ba noppi mel ni tey daal kii mel ni ku jommi waaw moom euh, Lat Joor laaj ko lu mu doon moom ko ko waxee mu ne ko yow yaa ndax yow yow yaay weñu man may nàngam wa waaye eh, waaye da fa gis euh, leneen lu am solo te boroom xam-xam yooyu mu indi ci sirkul jawaahir kenn ci ñoom wax ko ni euh, fii jahannama waa dun neel aw xunt rek sawara am na foo xunt boo ne nag man nga koo jàppe jaxiim wala xëw yi nga xamee ni mooy sawara yi nga xamee ni moom lii di tooñ tooñ yu mel nii ñuy gis ci senegal wala doon ko ci yenn réew yi moom ñooñu bu ñu faatu yàllee loolu te tuubuñu moom dañuy dem xuntu jaxiim wala hawiya fii jahannama waadun laa yaskunu illa al a azzairuna lil muluk mooy mooy ñi nga xamee ne tey ba ñuy taxawal xërëm bu toll ni baay bi yaay ji doom ji muy ca ca ñu def ko ca almadi mooy loole ñu naan monument de la renaissance xawma boobaa nga daal di appuyer Macky Sall euh, kii ngir baal mooy euh, Abdoulaye Wade tey jii Macky Sall nekk ci ñaawteef wala def lu defuwul nga appuyer ko ci ñooñee ëllëg xunt yu mel noonee lañ leen réserver donc loolu mooy tënk gi ala kulli xaalis mënoon ci indi lu gën a yaatu kon nag euh, ku bokk ak ñoom seen teraanga yi mooy bu ñuy dem Makkatal Mukarram ni la kaay avion bii présidentiel ci laa lay wutal place waaye nag bu ñu demee itam hôtelu lu étoiles ya may dal ca ngay dal tapis rouge yi melal restaurant yu yooye nga xamee ni ñam wa la neex ngay lekk bay boo après ñu ko cinq mille añ wala deux cent mille wala bo boobaa nag ñu mel noonu itam ku bokk ak ñoom seen teraangay àdduna yi ëllëg bu ñuy rëq seen digg rëq seen digg wasalaam euh, danaa euh, bu ma bala may daaneel danaa ci yokk ni Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu wa nafanaa bi barakaati liggéeyal islam liggéey bu rëy rëy mais liggéeyal nation bi liggéeyal humanité toute entière tey jii moo tax bu yutul islam nekk ba ca nga koy fekk New York fekk ko Afrique du Sud fekk ko fekk ko ci ay parti ci Italie fekk ko ca France loolu la non violence boo xam ni bariwul luñ koy waxtaane waaye la non violence li muy euh, moom amul problème ak jëmm ji moo xam nit ku weex la wala nit ku ñuul la moom li ma amal problème mooy caay-caay ga nekk ci muy weddi yàlla giy nekk ci doomu aadama ji wala caay-caay gay nekk ca moom wala bokkaale gay nekk ca moom loolu bi ma ci waxtaan ak ki nga xamee ne secrétaire particulier bu sëñ Abdoul Ahad pendant vingt et un doon sama wëllëre te décédé wala wàccub liggéey le premier janvier yaakaar naa ab lundi la woon deux mille vingt trois bi daan ma wax ni may naa la ba trois ba deux heures bi matin nga ak agsi ba fa ma nekk soriwuloon dara jumaay Tuubaa ji te waa Touba ñoom naan Mamoun Niang mais alhaji Mouhamadul Mahmoud Niang te loolu leeral naa ko ci Rafah TV kon daana wax ni kuunu alal xaq mahma kallafakumul amru kon ñun tey jii fa dëgg féete rek lañ war a féete moo xam nag sama baay tay moom moo yore woon réew mi wala sama yaay wala sama mag wala sama rakk di ko doxale nii ko Macky Sall di doxale man sëñ Touba daf maa jàngal ni ma soril jëmm jooje soril alaaji Aliyu Lo soril soxna Fatimatu Gueye soril diw sàngam diw sàngam bu dee moo yore réew mi te yore ko ci anam bu ñaaw bii injustice yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil xaq la ko wala tattabiil hawa bu toog sa passion ndax benn la ci noon yi ni nafsu nekkee inna nafsa la amaaratun bi suu moo tax sëñ Tuubaa ni an nafsu turidu an takuna ilahan ay matbuan wa taddu ila suu wa suu ila naar alhawa yuridu an yakuna ilahan ay matbuan wa yaddu ilal idlal wal idlalu ilal naar kon boo boo demee ci euh, téere boobu nga xamee ni mooy euh, euh, nodd bi dafa jib boo demee ci téere boobu ñu mañ mooto aji wasaaya da nga fekk yi may wax kon kuuna alal xaq mahma kallafakumul amru fa kullu ma fihi ridallahi jara fala taxaf fihi malamatal wala lépp luñ mën a am ngërëmal suñu boroom buñ ca ragal ñu naan kii dafa difficile ak kii dafa tàng ak kii dafa waxoon nañ ko Omar ibn Khattab waxoon nañ ko euh, Cheikh Abdul Ahad al Bakir radiallahu taala anhu kon daana daane lay waxam lu bare bari loolu alaaj Mouhamadul Mahmoud ñang moo ma ko wax ne euh, hada majlisu rahmani rahim la majlisu seytaan rajim majlisu rahmani rahim nag génnul daayiratul liman islam ihsan bil waajibi wal mandub wal mubaa asali al muslih kon nag nga sori majlisu seytaan rajim nag mooy al kufru wal fusuq wal isyan bil xaraami wal makruh wal mubaax al fasid al mufsid wal iyaazu billah kon ñun ñëpp dañoo war a sóobu te di fàttaliku que ni moom kat tudde nañ ko euh, ab troublemaker koo xam ni fauteur de trouble la waaye he was a liberator and a freedom fighter moom da doon xeex pour ñu am suñuy liberté pour mën a mën a jàng mën a jaamu yàlla ni ko yàlla digle ba noppi di mën a liggéey pour mën a préserver suñ diine ak suñ dignité yooyu doctrine mouridisme te itam moo war a nekk doctrine tijaani war a nekk doctrine ibadu rahmaan yi war a nekk doctrine waa fala war a nekk doctrine bépp jamaa bu wootee ndax mënoo woote mukk ci li bi doon woote te nga génn inna diina inda layil islam ak nag xëy na ku ca nekk ak nam koy wax ba nit ñi man koo dégg mais ala kulli haalin occasion la pour ñu xamee ni lëndëm moom du mën a mas masa masa indig leer waaye maanaam bis buñ defee ci son xol yi ak mbëggante euh, war a am solidarité ci suñ biir ñi nga xamee ne am nañu xam-xam ñu yulli seen xam-xam ñi am alal yulli seen xam euh, seen alal ñi am alal ak xam-xam buñ mënee def combinaison bu baax nag ki am alal am xam-xam am doole yi tam mu bañ a nay ci benn ci ñett yooyu yàlla defal ko nit nag lu jafe-jafe la Ali bun Abi Talib kenn mosu koo dégg ci xaalis waaye Ousmane bun Affan radiallahu taala anhu te pourtant de ab martyr la mujj nekk jox na ba tay islam ba ba ba xamee ni ñuqi amoon na njariñ ba léegi talee ba léegi dafa am njariñ ñuqi pour appuyer ñi nga xamee ni ñi ngi ci saaxa bi loolu kon murid bi dëgg-dëgg day jaayante maanaam ci alalam ci dooleem ci léppam maanaam ki nga xam ne nag maanaam dafa tële yooyu yëpp te yéeneen sell itam yàlla moom dara ump ko laa yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul alim kon assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nasrun min allahi wa fatun xari wa basiril muminin yal nañ àgg ci bésub altine bi ci jàmm màggal ko ni mu ko bëggee te daw lépp li nga xamee ni mooy puukaréewu ak ñi nga xamee ni défilé de mode depuis ña ngay ñaw di teg ñoom duñ fa jàng alquran duñ fa jàng benn baytu bu bu xasaydil xadim waaye daal lañ fay nekk mooy solo ko summeeku ak lekk kanaan ñoom ñoom lool lañ jàppe ni moo tax moo tax eh, def nañu màggal gee gàmmu yépp def nañ ko fol folklore nañ leen góor góorgóorlu ci loolu te information yi war a àgg ci xalifatu sayxil xadim nañuy àggale les bonnes information à ce que moom mu mën a jël décision yi nga xamee ni moom la war a jël mais caaxaar yi bare na lool mën naa ne plus de quatre-vingt pour cent ci ñuy dem ci màggal gi màggaliwuñu dara daanaka ay bataar rek lañ fay yenoo loolu man maa ko wax e et j'assume. waaw jërëjëf sëñ Fall am na solo xam naa am na solo lool wax dëgg yàlla yéen a jaajëfal ku ne xam ne jot waaye lii yëpp yéene rek ak ak yàlla ñun nit xam fi ngay waxee dëgg xam fi jamono toll ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ndax li nga wax daa am solo. ndax sëñ bi moom war a def res na koy gën a jàngale ci anam anam anam anam gi di anam gii nii maanaam anam nga am solo te ndax daanaka yu bari benn wet dañ koy jàngale loolu nag xay na moom euh, boo doon xool tey da naan euh, chaque année fan yamoon bu ñu ñëwee man loolu la ñuy waxaat mais nag dañuy tàngalaat ceeb rek waaye da gën a yokk euh, njàngileem sëñ bi waaye di gën a wane sëñ digg dëgg dëgg moom moo doon kan ndax boo doon xool tey sëñ Mbàkke Abdourahmane def na ci am solo mooy leer bi muy jàngataat leer bi sama law bi. ku ne xam na ne jamono fi jamono toll actualité bii moom fi réew toll ñu ngi jëm ay élection nangam wala nañu gën a wane sëñ bi dëgg dëgg li mu doon bu tubaab bi waaye li doon jàmmaarloog buri yi li doon wax xaalu yar ak kan gis nga ku ne xam na ku ne gis na ko waaye gis nga ku ne lam leetar ba bindoon Samba Laobé lam ko ci diggal ak li am solo gum am solo nga xam ne jamono du ko dépassé mukk fu ne maanaam képp ku ñëw di wut nguur war a ko war a ko wan képp ku yor nguur waaye bu ñëwee war def na la ko fàttaliwaat ndax lu am solo la am solo lool kon daal ñu ngi lay jaajëf bu baax a baax a baax incha allah jërëjëf.